donc nag kon ñun ñooy organ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 ne leen mbir mi ngeen fas yéene dugalal seen jiw loolu aussi benn problème la donc la bokkuloo ci projet bi mu xatal bokkuloo ci projet bi mu naan te nekkul sax ci logique bu jaamaarloo ak kenn ni nga ñu tàllalee sa loxo bi ñu wuy si ko ñun noonu la ñu tàllalee loxo yenn producteurs yëpp ñun ay ndaw lañu xale yi nekk ci support web yi di liggéey ay jeunes lañu tey.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 mënuloo dem ci open presse dem ci ay face to face jëli entraînement mbër jëli ay supporters ñëw ci làmb ji liggéey ñëw fa deux heures toog dem sa kër monté ñu ne la se heure ngay dugal sa vidéo est-ce que loolu c'est est-ce que loolu c'est logique yan donc dama jàpp ni réew mi nit ñoo ko bokk ku ci ne ci ñun daf ci am cër ñun presse en ligne du ñu abusé parce que dañoo ay support ñu waxee déedéet mooy lépp lu ci nekk dañu koy teg ci yoon wala teg ko ci dëkk man pour ci loolu ak ci dëkk laay def en tout cas le parlement wax moom moo aussi euh, euh, ñu doxal ba ci kanam gars yi fekk am na ay membres yoo xamante ni que peut être am nañ ci dëkk boo xam ne ñu échangé rek ba am solo xalaat yëpp. jërëjëf Bour. ok. Babacar baax na. dara dama mën a kii moom ak toolu Touba Abdou Fall moo ne mu fële. gars yi ci ginnaaw boo leen tegee ba pare da ngeen di jël chaise ngeen toog si mën ko def sax. gars yi bu ñu ñëw boo leen kii ba pare da ngeen di installé ba da ngeen jël chaise toog ah. ah. lii baax merci monsieur le technicien.